léegi enseignement bi nag dafa yaatu ñetti oustaz ñoo ñoo nekk ci école bi bu ci njëkk mooy Cheikh Moustapha gi moom mooy jàngale euh, langue arabe bi grammaire arabe bi ak yenn téere yi loolu ci feneen la koy defee waaye ci école bii man maay jàngale ci ngoon oustaz Seydou mooy jàngale ci suba si di jàngale alquran man may jàngale yeneen madd islam yi xadis fiq tawhid ay yenn chiar yi waaw loolu moo nekkoon euh, enseignement école yi alhamdulilah ñu ngi delluwaat di sant yàlla ci lii nga xamante ne yàlla may nañu ko te lépp nekk ci ndigalu Cheikh Mamadou Insa nga xam ne tey daara bi su taxawee ak yeneen daara yi nekk ci gox goxaan yi euh, moom moo ko euh, taxawal ci ndigalam ak ci ndigalu Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu naka noonu it la nekké ci tool yi di bay nek opérateur économique di liggéey nek it ko xamanteni ni day womat ndaw yi di leen euh, jëmele ci euh, dëgg ak ci pay yalla bi ñu bëri tarbiyu nañu xam nañ yalla ci buntu kon ni cheikh mahamad amu ñu fayam ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam may ko wër dara ji euh mu ko taxawal depuis 2006 ñëk ñuy am local sax daanaka ñu nekkoon ci école excellence arafat daan fa jàngale chaque dimanche dimanche de 8 heures ba 13 heures lañ daan jàngale daan fa jàngale alxuraan ak langue arab ay téere yu mel ni durusul arab yeeg yooyu ginnaaw bi nag gën na yaatu ñu jàngale ay ajurumiya téere grammaire ak yeneen ak yeneen wax dëgg neex yàlla ñu bëri génnee nañ fii mën nañ compter plus de 50 élèves yoo xamante ne euh, jàng nañ alxuraan ba mën nañ lire te it am na lu bëri lu ñu mën ci langue arabe ginnaaw yàlla ak euh, initiative am moom Baye Cheikh Mamadou Insa Diouf donc day nekk mu nekk sëriñ bu mat ci fànn yëpp euh, di taxawee diine ci fànn yëpp ñu koy ñaanal yàlla yàlla bëggal fanam li mu def fii nag noonu la ko defee ci yeneen gox goxaan yëpp salaamaaleykum